ay waay catoo ci mawa mais nag toogal toogal waaye kii du Alboury yow. ah gaamu Alboury day am na fa toog leen ci kër. eh Alboury ñëw ngeen toog toog leen ci poto yooyu. Alboury ma seet si da ngaa ñëw ne ma tàllaay maaleykum salaam. waaye yàlla baax na. Alboury sama waajaani ni allo. waaye guy gi nga ne Alboury. Alboury ngi nii. Alboury jox maa ngi lay Albouri xam nañu ne Albouri moo ma seet si borom Grand Dakar Grand Dakar. waaw borom mi dëgg dëgg. mais mais mais maam. waaye sa gaam bi tey réew mi dina ne ko mbaa ma naa la file. mais Albouri naka tey yow maam dalaa ragal. xam nga lu tax maam dalaa ragal. parce que signature ba yow li nga wax maam lépp man yaakaaroon naa ne boo dugusee rek. man dalay song affronté la. daa ñëw ma delloo avance dama jaaxle. nii laa ko doon xool xam nga lii xel nangu ko. <laughs> <laughs> <laughs> voilà loolu la demee tey ñu ngi fii fii na. Ah. waaw tey moo loolu dañ koy jaaral rek. gis place bi ne nañ def tuur rek ba dugg. Ah, waaw siyaar ko ndax wax dëgg yàlla. Euh, dëgg neexul. Euh, moom la fa yàlla teg. nee naa la ku ñambaan suukar yaawoo weñ te lépp bu sedd boole te ñëw suukar ko woon xanaa nga bañ ndax moom la fa yàlla teg. jàpp nañ ñëw nañ seet si ko. mais signature bi yi nga doon wax yow yow da ngaa xamoon maam avant wala lu mu demee noonu. ah non man maa gis maam xaw ma ko. waaye la moo tax yow léegi nga yeb ko yeb gu toll nii. maam di jaay savon nga ko di. Ah, mais maam doo dëggal sa bopp na yow tamit. mais xam nga instant bi Sénégal bu dee bu bu nekkoon cent personnes euh, soixante dix yëpp bu ñu amee bien yàlla ak moom moo tax. te wax dëgg yàlla instant bi nit nag boo ñuulee ku doon neex a toog boo ñuulee ku doon neex a nopp waaye boo amee benn teint bi ku la da neex a bëgg ndax instant bi il est temps maanaam ma jub ci sama teint bi nag. ndax mënu ma nekk ci dëkk bi. sëyu ma mënu maa def dara ku ma nopp nga bañ maa ngi nii xasal daal ma am tey bu doy waar. jox ma filim ah? alburi bi alburi bi nga ah, am na filim ah. ah? alburi fi mu ne dama ko fental benn diw bu bees filim laa ko tuddee. waaw ba pare dama ko hydraté dafa ñuul de. mais alburi bi sa neex naa defar maam. man dama jaaxle. daa wax état bi nii eh, coow la fi ne waaye ku ma jëloon sang ba ma set diw ma ba ma am purité. dama neex a utiliser. da ngaa jantal. non. <laughs> ba pare xoolal da ngaa dugg si kii naa Alboury rek Kara. Alboury am eh, eh, eh, na Kara dafa ñuul loolu am Bambi. Bambi Bambi baax man bu ma ñuulee am jabar bu ñuul. xaaral eh. buñ amee doom maanaam coupure générale lay. <laughs> kon nogay est-ce que du ma la xeesal. waaw fexe jar na ko nogay jar na ko. jar na ko bu baax. waaw kontaan naa bu baax. expliqué. ndax nee naa la li ma lay wax chaque jour rek Sénégal benn bopp la kenn du ko xam xamuma ko ñu ngi doog a gisante mais dafa def lu rafet ma ma ma kontaan ci. ndax ku ne xam na ni signature contrat ku la ci tudd rek dalaa publicité la. mu nekk ku baax. ba pare nekk koo xam ni euh, dafa gën na xam nga lu tax. Alboury dootoo bu ah. bëree ak Jacob ba pare. bu bëree ak Jacob ba pare. dama gis euh, geste bu rafet bu mu def geste noble la def parce que nee naa la ak lu mu mënti doon rek ak lu mu mënti doon ci àddina rek euh, nit même la daanee ndam gi demul fenn lu du Sénégal nanu fair play te moom dafa fair play mu nekk nit ku baax nit ko am personnalité xamuma ko mais ci jëfinam laa gis ak waxinam ak ak ak ak ambiance am man dama bëgg nit kuy ambiance ak lu mënti am ci àdduna rek del ambiance te dama gis loolu ci moom mais bi nga gisee signature bi mu lay mbalak di la di la di la di yooyu boobu boobu mënu ma ko toon damaa bëggoon bàyyi ba combat bi jàll ma doog ko toon mais combat bi rek am na lu ci rax mhm. naa ko mu ni moo la liggéey albu albu de albu de mais moo la liggéey déedéet topp naa def bul déglu kii <laughs> kii bu ko déglu yow sama sëriñ nga te jàpp di jaay affaire de booy fini eh, bul wax loolu ah, man sax ko gisuma ko gën naa gis ay at ba mu daa bi ngeen bëree ba pare laa koy doog a gis te ma rafet rafetlu ko tamit bu baax a baax nga nekk ku baax di la ñaanal boo amaatee combat yal na la yàlla may ndam ci darajay allah ji fàllu Mbàkke di la wax fi nga teg sa loxo nii foofu la ndax baax rek moo am solo ak ambiance te loolu la loolu la nit di gënee doomu aadama te yow da nga baax macha allah mais yow tamit ñu ci gis nga def loo xam ne nii loo xam ne nii dafa rafet parce que ñaari mbër yu bëri ba pare ku ne xam na ki ya nga dëkk Pikine ki nga dëkk Parcelles mais dajale bi quoi xam nga dafa rafet dajale bi Zagob ñëw na fi démb Albouri ñëw na fi tey. ah non non c'est que loolu moom euh, pour man Sénégal benn bopp la. Mhm. te ñun ñëpp benn lañ. ñu làmb ay mbër lañu mais tamit à làmb ñun ñëpp euh, c'est la famille quoi pour ñun. dëgg la dara jarul fi ñaaw dara jarul ay parcelles Pikine loolu yëpp ndax waa Pikine rek maintes nit jugee na ñëw sëy si parcelle ba am fa ay njaboot. ñu jigéen a parcelle ñëw sëy si Pikine ba am fi njaboot ñu dugalante amul jaxasoo amul parcelle amul dugal. pour man Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam. dëgg la kon nag làmb la làmb la. avant làmb bi lépp lu ñu waroon a def def nañ ko lépp lu ñu mënoon def nañ ko. yàlla moo ñëw ak ay dogalam da koy koy nangu man bëriwuma woon ak waa Pikine sa ko si laa doon bëri pare naa ci moom pare naa ci pare naa ci léegi ay frère lañu bis bu ñu yàlla leneen boolewaatee tamit dañ koy dund contrat la bu jeexee jeex na am na amul solo fii xoolal ku dee bàyyi projet am na amul solo mais mais mais maam léegi looy wax mais amul bi su neex laa defar moom amul bi neex laa defar ah Alboury dama koy pili yow dangaa fàtte man loo ñuul ma pili la loo ñuul ñuul ma ñotti la te ko ñotti ba mu xeex damay ragal kay ma amaat combat rek naan naan mbëri seeti maam Ndiaye sax ah waaw Alboury mën nga ci moom dara ma waaw Alboury sax ndax yàlla sax la ah mayal leen ma Alboury ay kër nag mayal leen ma sama Alboury mii kër ba pare dama ko fental way bu neex alburé demal te ñëw waaw waaw alburé demal te ñëw waaw waaw yow rek laay topp. xam nga loolu dama lay jaral ah dama lay jaral alburé. Ah. ah dama lay jaral rek dama lay jox paa jox ko yow ba jox ko sëriñ ah sama waa ji dama koy jaral. ma ne sax dama jël combat ma ne. waaw ah, jarul jël combat nag guy gi. bu la taxee jël combat euh, kii yaa ngi ci ci kii bi ku yaa ngi ci ku yaa ngi ci ci bu la taxee jël combat. guy gi sa mbëru français la. ba pare. guy gi. du ko dugal. mbëru français la français lay keroog fekk naa la ci mayka bi nga tëdd di nelaw yow ak Kumba Dia ak Ami Dia ma fekk leen ci mayka bi ngeen tëdd di nelaw ma ma dimbali leen ma yàq mais rimbir bi très bien ni nga def alors ku baax mais fou saa waay loo wax ak mbërëb yi ak seet si bi tamit mu lii dafa rafet nag ayoo ah, nga doon dund làmb quoi lii bu rafet la aussi. ah bu dee am nga jabar wala am nga jabar. amul. yaa yaa jël sax amul. wuyul yow kii nee na maa ngi nii nga lan am na. jabar waaw. wuy yaay. waaw kontaan naa. wuy <laughs> kontaan naa bu baax a baax Alboury. bilaay ma kii kan la Sokku Sokku lan la bëgg a wax Alboury. xam naa daa bëgg a dugg waxal Alboury Alboury Sokku de moo bëgg a dugg ci direct bi. moo soog Sokku no Sokku no. Sokku loo bëgg a wax Alboury. ah. ah. allo. waaw Sokone. mais man tey ñëw non Alboury nag bëri na mbir wi. waaw mais maam def nga lu rafet nag. waaw def nga lu rafet nag. ndax ndax tey bu la neexoon mën na la ca bañ ndeysaan def nga lu rafet nag. ndeysaan ndax bëri woo bëri waat na. ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. laaj waaw. billaay billaay ndeysaan dama baax billaay dama réew bëgg naa ko amin ndeysaan dégg ndeysaan C'est ça. mais comme mais mais yaa baax rek ci laaj. Thank you. ndeysaan alors ma ne ko dëkk am na. am na ko dëkk. très bien fii kese nga. amiin waay amiin. waaw boo jël vaseline bi vaseline moo gën a gaaw. man de heure bu heure bu amatee combat ma teral ko man heure bu amatee combat ma teral ko fi na Alboury rek laay topp. ah. bu doon bëreeg man nag. <laughs> maa ngi xam ne ma ma ma sama bëri sama bëri. ma ma tur laa demee comme yéen a ngi waaw dëggul rek soo koy wax da ngaa dëggul nii mën nga nekk fi di ma wax lu baax xëy suba. xëy suba teel peinture ma. doo yàpp doo jël da ngaa bëri jikko loolu moom sa loolu moom wax nga ma sama jikko ma dama lay wax sa jikko. deux ans. Liberté 6 deux mille waaw. man dama livreur rek soxna si maa ngi def erreur sax dina wax ay ay. ndeysaan ndeysaan. waaw dégg naa woon. ma ne. mën naa wax deux mille. deux mille cinq cent. yaa ko waxee rek jërëjëf waaw yàlla defal la jàmm. waaw waaw mais tamit loolu xew li. kooku kontaan naa de kontaan naa. mais mais mais mais la kat incha allah xarim temps ma dama. waaw léegi vocal ma ko rek dinaa ko dinaa ko dinaa ko wax vocal ma ko. xarim temps. waaw dama koy vocal. kontaan naa waaw léegi nag nga. léegi nag nga ne nga. mais yéen ñaar comme comme comme comme café ak meew. café ak <laughs> waaw comme mooy kii ni ñu koy waxatee. café ak meew ni ñu koy waxee. café au lait café au lait. léegi nag dañuy ñëw ci xaarim tam. daf ma sargal. la 4 dimanche xaadim taa a taa zibiri taa tubaarkàlla macha allah. xale xale xale tribunal taa tigri taa taa taa kooku mooy xaadim taa yow nee la yow da ngaa jël gët bi sargal ku jara sargal. dëgg la muy maam nga xam ne. Euh, xanaa nga bañ mais moom la fi yàlla tënk. voilà nañ ko nangul. la kat incha allah su xaadim taa boobu di ci woo ñëpp kenn kuy fan si xaadim taa rek. ñëw leen foofu ñu ambiance. kontaan naa maa ngi dagg direct bi Albouri moo taxoon ma taas parce que tey aw ma jot gis ngeen xaar. bagage yi la ñu nekk bagage su ci la ñu nekk ni di ko tiré ba ci kanam rek. am waaw am kii woon commencé commencé ma wax ak sama mbër mi. Albouri rek ah, laay topp ndox rek. ana Albouri. am sa gàmm bi. Albouri yow yow dafa yomb ndox. ana gàmmu Albouri. mooy bañ xees. waaw génne waaw parfum ngay jaay parfum ngay jaay léegi damaa bëgg nga nga nga almuri sa gel bi parfum lay jaay dama la bëgg a jëndal quatre parfum. ah. te alma. génneel ko Nova génneel ko Nova. ay waay Samba mooy jaay parfum. kuy jaay la. agara fu wuyul. xam naa war na war naa la soin soin soin sa bakkan soxla soin de visage soin la la ilaha illallah benn parfum ci maam Ndiaye <laughs> ñaari parfum pour maam Ndiaye sa bopp de a kale nee na looy wax ci lii nag par rapport ak ah looy wax ci lii par rapport ak liñ xam nga ñëw bi doon ñëw surprise la fekk nga toog looy wax ci lii par rapport ak maam ni nga ko gisee ak ni nga koy déggee waaw maam boo ko déggee yaakaar rek nitu nitu histoire la par rapport ak ni mu demee tey. ak ak ak teraanga bi ak seet si aussi tamit. am am am na daal euh, ñun dañu dañ ko jàppee comme suñu sœur. dëgg la waaw ndax am na amul noo mel bay teel a rek nit mel na ko nekk ci biir suuf loo am bay teel a rek nit mel na ko nekk ci biir suuf. kon nag euh, oyof mu rek moo am solo. nit naan mbaxana oyof moo ko bàyyi ci kaw ku diis du diisoon wala mu am ni muy mel. ëpp ma fulla ëpp ma dara te yaakaaruma ci moom dara moo fi ñëw mais wàcce boppam xama nit ñi sénégalais sénégalais bëgguñu ku rëy bëgguñu ku fuy dañoo bëgg maanaam kuy waxtaan ak ñoom di dindi seen stress di kafam ñoom di fo ak ñoom di reetaan ak ñoom moom rek lañ ko bëggee de ni mu mel nii moom ci changé dara voilà yàlla li ci nekk yàlla moom la ci teg di ko ñaanal succès yokk business am yokk léppam yokk ndax wax dëgg yàlla soxorul de li am li ko yàlla may ni ñu koy partagé ak doomu aadama yi. heure boo fi ñëwee da fi fekk ay nit ñu leen dimbali tey ak suba ginnaaw suba ci yam su mu ko jàpp daal foofu la ba muy door gisul kenn ba mu demee ba toll fii gis nga ñëpp ñëw nañ nag jël ñëpp ëmb leen gérer di def ñu bàyyi ko ci loxo yàlla defal ko jàmm defal ko tawfeex man nag kontaan naa ci ñëw bi gis ñu ngi tey maa alburi savon ay <laughs> eh, maam alburi savon <laughs> oh, Alboury Savon ah. war naa mën di jàmbat mais man da ngaa commencé maam am na salbe savon maam am na am nga Alboury Savon. <laughs> ah waaw waaw ndeysaan Alboury dafa baax yow mosuma gis ku baaxee nii dama koy baax moom baax a koy faj. Ah, nit baax la kontaan naa bu baax guy gi barke Alxuraan. Eh, nag balaa koo xam nga seet ko wala mu seet si la. dëgg la nag boo fee ñëw wax dëgg yàlla lépp lu ñu doon wax ci moom gis naa ko ci bu baax baax. teral na ma defal na ma ay teraanga yu rëy rëy rëy te mënoon na ko ci gën a teral ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm. amiin yokk la. amiin musal la. amiin si doom raan yi. ak doomu xaraan yi jëmm yeeg jëmm yeeg seen kan yi yàlla yàlla def jàmm. amiin jërëjëf. Eh.